kaw euh, école euh, vingt sept euh, bi nga xamante ni nag centre témoin la mooy bi gën a rëy ci biir commune mais jàppale nag résultat yi si benn génn gu ci ndax vote bi sànq rek même pas cinq minutes le bureau bu mujj bi doog a tëj ndax ba ba vingt heures passé nit ñi ñu ngi doon voté mais ma joxe ñaari résultat rek yoo xam te li génn ci commune bu Pikine Est mooy li jàppandeegum ci li ñu jot a yor loolu ca école trois la ñu gën koo xam ci Touba Diacksao bu dee ci ville bi fi nga xamante ne ni moom moo di bureau 3 ci boobu l'école euh, jàppal ni Benno Bokk Yaakaar moo jiitu cent vingt une voix la am euh, ñii di waa wallu Sénégal daal ci topp mooy ñu am soixante six euh, voix Réewum Ngor am onze coalition la troisième voie am quatre voix coalition defar sa gox am dix neuf voix gëm ci ci ville bi wala ci ci commune bi li ma joxe léegi ci ville bi la bu dee ci ci commune bi ba tey ci école 3 euh, di Touba Diaksaaw euh, jàppal ni foofee benn bokk yaakaar tamit ñoo koy jiitu avec cent dix neuf voix Yewwi Askan Wi ñëw ak euh, cent cinquante neuf voix Wallu Sénégal am trente une voix Gëm sa bopp am dix sept caabi caabi yi am onze voix defar sa gox am seize voix bu dee ci ville bi nag comme ni ma ma résultat bu ñu ko joxee Sara Yewwi Askan Wi amul candidat nag ci élection ville bi ñoom ñu fàttali ni Euh, seen liste dañ ko rejeté woon euh, ba ginnaaw gi ak recours yi ñu dugal euh, waa cour suprême daal di koy invalidé confirmé nag lii di autorité préfectorale bi donc Sara jàppal ni fii looloo fii looloo looloo fi amagum ci ay résultats yu disponible ci ñu yor ndax vote bi nag dafa yéex a commencé tey daanaka dix heures moins neuf heures trente la vote bi doo ko tàmbali fii xam naa ci kanam tuuti dinañ gën a dellu ci yeneen résultat yi nga xamante nii jot na fee ruus Euh, ñu la jaajëfal Ndongo donc ay résultats yu fa ruusandi xam naa dinañ ñëw euh, la jotaat plusieurs fois dans la soirée ndax banlieue de Dakar moom ñëpp xam nañ ñu ne euh, vraiment enjeu yi